képp koo xam ne bëgg nañoo topp bu abonné ci seen bii rek di Mbacke Kadior TV lu ñu ci dana ko am en exclusivité jëre ngeen jëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi nuyu mbooloo mi di leen ziyaar bu baax di leen fàttali suñu bis bi nga xam ne moom la sëriñ jiile Abdou Aziz di amal muy journée culturelle Serigne Abdou Aziz Bara fee ca CICES le mars